mi nii ngeen defe yéen jullit yi tooñ yàlla la guddi guddi yonent bi eh, ci jikkoom rekk lanu mën taataane xam nga yàlla ko suturaal yàlla suturaal kaaba gi yàlla suturaal rawdoom bu ñu xëyee xëy kaaba gi lakk dem ba wàll ci bàmmeelu yonent bi mu lakk jullit yépp ni dañoo ñàkk seen bakkan lekkatuñu am ci ñuy sikk yàlla ci seen xol ñi bëggul yonent bi yépp di ko feetu su ñu gisul mag mu xàmme ci seen kanam adduna tukki moo tax woykat wa am lu mu fàttali parce que fàttali itam li tax ñu di ko def mooy dafa am crise bu garaaw boo xam ni am na ku màgg ci tubaab yi wax na ci ci fan yii bi ñu koy laaj ban crise mo japp tubaab yi mu ni leen crise de mémoire man ku ma san ñëw fii laaj ma Sénégal ban crise moo ko jàpp ma ni la crise de logique parce que lu weex ñu ni dafa ñuul ba mujj kilifa ñëw fi may weranteeg moom fekk xam na réew mi ma laaj ko man ni ko ban crise moo nu jàpp nun mu ne ma crise de perception ma xam ni dellu na fi ma waxoon fa xayaatun biha izdiwaaju wa ardun anta fiiha بمستوى الإدراك جسمك في نيغور جيجين دي سي نون لا رياليتي دي سي فحياة بها ازدواج وأرض أنت فيها بمستوى الإدراك motax pour wax la yalla ni mu teurele alquran ni mu yeme da gis nga lang yeb lang arab mo ci jekk nandal bopam ci jawhar làngu arab moo jëkk nàndal boppam ci jawaar dix pour cent yi màdd la yi jawaar la moo tax seen waxin moo jëkk yéem àdduna waxin bu mu manti doon ba tax ñu ni jox nañ leen sixrul bayaan sixrul bayaan inna min al bayaani la sixra dem nañ ci ba ñoom seen làmmiñu bopp mënatuñu firi li mu leen di wax lool lan la tellement que daf leen dépassé looloo tax فإن شيطاني أمير الجن يذهب بي في الشعر كل فن xam nga daan nañu dem woykat yu jëkk yi ba ni ànduñoo kese-kese dañu ànd ak buuru jinne yu leen di jàngal nañoo waxe dem nañu bëggam ko ba di ko waxe parce que ku mel ni umruul qays ku mel ni nabirata zubyaani yi ku mel ni zuwayr ibnu abi salma wala ñi leen mujj ni ñuy waxe mën nga wax ni nit àggul ci mën a wax noonu mënul nekk looloo tax ñoom ñu nit dañu am jinne yu leen di dimbale ci wax ba moo tax ñu tudde seen wax seexarul bayaan ni wax la buy jabar nit ba nit ki dootul ànd ak sangoo sagoom wante yépp yàlla mi ngi ko def ngir wone ni mi ngi wàcce si téere bu nga xam ni ku nekk ci la sa àtte nekk tey bu ko tëralul ci waxin bu gën a kawe wax yi wax ja dana bare te du motax mu fexe arab yi ba ñu tuubagul mu fexe ba jox leen seexarul bayan yonent bi ñëw bok ci seen biir bok nek ci seen digg war di wax yàlla ne ko do fi waye te momit bëgg na wane ni xam na ci seexarul bayan dara yàlla ni ko déedéet comme da ngay jàng da ngay déglu arab yi ñu ngeeg sixrul bayaan wante yow xaqul bayaan nga ame wala yaatuunaka bi mathal illa jiinaaka bil xaq moo tax yonent bi mënul wëy defee yàlla tàmbaleeg moom ci jawhar alimul xaybi wa shahada waaw bu ko defee góor gën ni leen ci waxu arab wa xidman وقدما حما من صاحب الفيل بيته ولما أتى الحجاج أمكنه الهد يلا خرلنا لينك أبرها نختأويل بعللنا لين حجاج نختأويل waaw kon nag fala tunkiru an yuxrama alxaramu xam nga màkka tollu woon na ci turu yonent bi ak nit ña fay ñëw tabarkalla ni ñu toll lañu fay génne ci alal kenn xamul na mu toll mais bi yooyu takk ba lakk makka boutique desul marché desul alal desul dund desul jullit yépp ni yàlla li mu def du noonu mu fàttali leen nag euh, ndax bañ seen diggante ak seen source dog mu ne leen bu leen weddi ndax xañ gi yàlla xañ alal Makka ak Madina bu leen weddi ndax loolu dangeen di fàttaliku nag seen source te mooy Muhammad moo leen fi indi waaye na ngeen bàyyi xel ci ni ki leen fi indi لمدان mu daan puukare woo mooy xëy te amul dépense فلا تنكروا أن يحرم الحرم الغنى وساكنه من فخره الفقر والزهد yonent bi dafay bég bu xëyee amul dépense dama dem ba barkeem ñëw ñépp riche fàtte seen source dox seen diggante ak seen source ndax seen alal ñenn ñi ndax seen juddu may doomu dammel fekk na may doomu dammel wala may traitant bi ci cadre zanniyaat yi rek la bokkul ci cadre yaqiniyaat yi looloo tax ki taxaw ci cadre rodaniyat yi ni may doomu damel mais ki toog ki nekk ci cadre yaqiniyat yi moom dafa naan yàllaay sama borom kooku gën kawe kooku gën kawe waaw ndax yow ci cadre rodaniyat yi rek ci ngay àttewoo kii nag ci cadre yaqiniyat yi lay àttewoo damel la ma jur mu ni la yàllaay sama borom waaw et hein? eh? su ko defee xel yi soog a dellu si kon nag waxkat boobu bu dee kilifa bu am xam-xam wax ni crise mémoire am na ba tax ñu di ko génne ci télévision yépp ak di ko tagg ci honnêteté am fekk na am na ku ko ci jiitu fa dhakkir innama anta mudhakkir wa dhakkir فإن الذكرى تنفع المؤمنين إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار yàlla dafa ni yonent bi ñu baax ñi nga dégg xam nga lu ñu gëne nit ñi mooy tout le temps ñu ngee jonju ci seen source xam nga ki ñu jox ndox mu sell saabu bu sell sarbet bu sell te mu bëgg ndox waxtu wu ne mu sangu kooku du tilim yàlla nee na dafa am nitam ñu nga xam ni pour naan ci source bi leen gën lépp wante it ci la ñoo amee seen cër cër bu kenn amul mu di ko jàngal yonent bi benn par benn li ci aju ci màdd mu jàngal ko ko bu ñu nee màdd nag lépp dugg na même biochimie dugg na ndax lu dul màdd rek jawaar la lu dul màdd jawaar la jawaar nag mooy antimatière dëgg la arab dina woy wax ni sama ndaw si collier bi ci jawhar lañ ko defe dinañ ko woyee seen ndaw bu bu rafet te am takkaayu bu rafet ñu ni takkaay bi ci jawhar lañ ko defe mais jawhar mooy antimatière kenn mënu ko làmb jawhar kenn mënu ko làmb euh, sama turandoo mas na wax jawhariyatu muqlat laay lu garaaw la moom du wax lu dul lu garaaw te du tenir compte ci ni dafa bari noon ndax waa Fass yépp noonam la woon te ñoom ñëpp dañu jàng mu tëb tëb posé problème mu jawariyatu muqlat ñi ko bëgg daaneel di wër jàkk yi di wax ni neena na alayn jawhar la te waxul alayn jawhariyatu muqlat alayn la wax xam nga bët li ci tuuti le cheikh wax ni jëwhar la gën a jege ci matière liy gis ci doomu gis nga te itam dafay daldi indi bu nit gisatul bopp xanaa dundam amul njariñ or bu nit gisatul ci la dundam gën a am njariñ lu tax nopp dafa fal te nopp la yàlla fal ci alquran wa taayaha udunun waaye waaw bu bët jëlee retraite nopp falu wa taayaha udunun waaye nopp bu intelligent yàlla ko tudd ci alquran waaw mu dellu ca la benn mbokk bu dul gis te di waykat bu rëy bu touriste yi ñëwee ni dañoo visiter site yi xam nga yàlla dafa wax yonent bi ni ko ne jullit yi at mu jot ñu jël ci seen dund organiser ci tourisme seeti site yoo xam ni bu ñu ko xoolee rekk seen xel dem ci man waaw moom itam bu touriste yi ñëwee te gis mu ànd ca bu ko defee ñuy wokkati وكاتي ومتموي ريتان أسمع بغدادا ولا أراها خمنا بغداد في سما النب تخمي ومكو في سما بد تخم بريك مو أم صلو واو xam bi rek moo am solo moo tax lépp luy dog diggante nit ak source bi rekk musiba la te nag pour mucc ci lu ko gën a jafe amul parce que da ko dul fàttaliku da ko dul fàttaliku ñàkk fàttaliku bi mooy musiba mi yow doo xëy ba ne am naa source mukk ndax boo xëyee rek soxla yi ñëw dinañu fexe ci bëccëg bi ba dog sa digganteeg source bi dara nga ci mën benn sa jabar yi ñëw la jël la wala sa xarit yi ñëw la jël la wala buur yi ñëw la jël la wala nga la jël sa bopp wala nga la sa bopp te booboo yées ndax nee ñu kooku ku sa xel dàq foo làqu tëla waaw bu ko defee yooyu yëpp su ko defee yooyu yëpp yàlla def ci bàyyiloo yonent bi xel lépp lu nga xam ni dana xajamal jikkoom ci ko yonent bi yàlla dénoncé na lool jëkk yonent bi ci làmmiñu yonent yi la ko jaarale ci dit ku yonent bi ci làmmiñu jibril la ko jaarale ci gannaaw yonent bi ci làmmiñu Axtab yi la ko jaarale njàng mu dul jeex abadan jikko bu dul jeex abadan loolu moo tax Sayyiduna Ali رضي الله تعالى عنه دفدا وخني نين يرمنا فقيه بغا خمني نين يرمنا فقيه بغا خمني فقيه مو يكو جانج فقه moy ku jàng fiq Ali ibn Abi Talib nee na yërëm na ku jàng fiq ta amulo hakim comme iliman ndax hakim moy firi sharia waye faqih du firi sharia waye nee na yërëm na xakim bu amul arif

بكل أكينو ماي حكمة يؤتي الحكمة ما يشاء ومن يوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا واو واي بكل إتم أكينغا خمني دفن لجيك معرفة موتخ وعلم آدم الأسماء جولة عم جفاسي ndax dañu ne wa allama adama al asma kullaha ñu ne ah kon musammayaat yi bokk ci cheikh ne ah musammayaat yi ci la bokk ñu ni ko lu tax maanaa al asma wal musammayaat mooy contenant yi ak contenu yi malaaka yi li ñuy yàgg ak yàlla yépp li ñuy yàgg ak yàlla yépp nangami milliards at ñu nekk fa taxul ñu xam asmaaw yi waxuma ni contenu yi xamuñu ko mais même contenant yi xamuñu ko malaaka yi dañ leen di def loo rek ñu def ما شيخ في مدق بوخني آدم نمو خمي أسماء يلا خمي مسمى يعني موي أقول بني يوننت بجارو لكي مرتبة القطبانية أم تأمل كن كجار لكي مرتبة القطبانية تخمو لو مسمى لا أوتوماتيك آدم خمنا مسمى ko noon rekk la toll xam na mu sama yaat mu dellu ci al aslaakul jawhariya waaw al gis nga ñetti ligne la ñetti ligne ñetti ligne la وجدوا السلك وجدوا السلك واحديا وسلكا أحديا وثالثا يجتديه gis nga ñi nekk ci alamul xayb bëtu jawhar la ñu amee amuñu mbëtu màdd moo tax lu fa nekk di jawhar ñu gis ko ñetti ligne yi ñu gis léeg-léeg mu wóor ni ligne bii di tàkk de am na góor gu fa tëdd am ku muy wax te mooy rabbul izza mu ñetti ligne benn bi dana sone jibril alayhi salaam wuyu malaayika yëpp di lox ngir defe ni dina joxe tey ay instruction pour ñu écraser univers yi mu bind yëpp te yoonam du ci bu ko defee fekk daf ko jox service bi ci di des itam gis nañu léeg-léeg ñu gis tàkk-tàkk bu dul tàkk-tàkku safara ñu xam ni góor ga fa tëdd na ñu ma waxal te moo di arwaahul ambiya wa arwaaxul aqdaam yoonu kenn nekku ci xamuloo ni jibril am na lu mu dul xam ñii yàlla jëlal contact directement jibril xamu ko xamu ko waaye bu ñetteel ba nag moo tëdd rekk ni pat ñépp ni ki bés bu sonee lépp jeex mu tëdd rek ñaar yii daal lay takk bu bii takkee jibril wuyu bu bële takkee arwaax lambiya yi wuyu bi ci des ni patt pattaara lu dul lu dul bés bi yonent bi jóge ci ndeyam ngelaw upp ko mu tiis li ci la déclenché ñu xam ni góor gu mag gi mooy ndokkeel ruuxu yonent bi jóge gi mu jóge ci alamul xayb ñëw ci alamu shahaada waaw waaw kooku cërëm la waaw yonent yàlla daawuda moo ñaanoon ci tawraat wax yàlla ni ko may nu nu mujj gannaaw may nu ku nu mujj gannaaw koo xam ne lu njaboot yi yàq dina ko defar تسير تنقلا وبسيرها خالدت خطوط مسيد البنيان ما نقطة التوحيد قبل بعشيا ما بسطة الخط المديد ثاني تليت بتوراة الكليم ووريت بمكامن الإنجيل للرهباني وأتى بها سبع المثاني أذهما بحروفها حفظا لسبع مثاني فغدا بها للناس كل مصالح تؤتى بلا عجز ولا إدمان أمناء نهجك في تعدد سعيم أمناء وهذا العالم الجسماني فكأنهم في ذكر والأدب الذي في ذكر من ملأ السماء الروحاني وكأنهم وقت النشاط لأهلهم ولقومهم بوظيفة السلطان إلا الشراذم يجعلون حقائقا للدين أو يبغون حكم الجاني فنعم يؤدون الأوامر غفلة ويرون كل الخير في العدوان إلا رجالا يدعون تقيدا لكن بعهد النفس والشيطان أخذوا ولكن لا لخلق طاهر وعتوا ولكن لا لقلب عاد أخذوا ولكن لا لخلق طاهر وعتوا ولكن لا لقلب العاد إن الحياة تعدهم كزيادة للحمل في معنى المنن فهم الأولى يتجولون بطالة ويلتقون محارم الإخوان ويبجلون الأغنياء لغناهم ويحاربون أئمة الرضوان هذا وإني لا أخالف عنصرا هو في الإرادة نشأة الأكوان لا لا ولا التكريم كنت ماردا حتى أخوض اليوم في ده لكنني لو كنت فظا جافيا أهوى المكارم في الصفاء ولقد ولدت وليدا بولادتي لولادتي في منهج التجاني ولأنني سميت من أمر بي فجزى الإله فطن بي سماني طبقته وفق الزمان وحكمي واصمته بعناية ودمان فكأنك الفرقان في إعجازي حقا وفي الإيضاح لل وكأنما اختلطت بالروح ككلها آية فضلا من الرحمن وجعلت دنيا العالمين شقيقة للجنة العليا بكل هذه لتربية وتلك للراحة معناهما في الخير والأرض فإليك يا ابن محمد ناداني شيم تحاقق جوهر بدر بمولد أحمد من مولدي قل لسول فبدعة مرضية أعظم بها من بدعة لم تجحد كثرت أساطير الضلالة في الورى والدين معهود بما لم يحمد والحق عارية بأيدي ظالم والخير شر وديعة للمعتدي والعلم أضحى للهوى كمساند والعدل عدل تحت أمر الحسد والمال صرف في العناد وإنما حظ الأمير الفرد حظ المفسد لكن من لدى مدين من شأنه المعاد زاهرا والنفس تنتعش انتعاش مخلدي والنور فيه مقسم بجميعه واليمن بعد ميسر للمجتدي والرشد يرجع للقلوب مجددا والرشد خير وسيلة لمجددي لا خير إلا في مدائح مادح بالخلق والخلق الكريم مرددي إما بكامله البسيط موفرا إما بفضل طويله للمنشد إما بتزويد الوفود بخيره إما بإكرام الضيوف الوفد إما بتعظيم الحقائق كلها في ذكري إما بحب محمد صلى عليه الله فيه ملكوته أو ملكه اليوم من المسجد لهم المشهد هذا جزاء المؤمنين مسلمين لكونهم يدعون أمة خير هاد مرشد هذا هو القرآن ينطق بالذي يعي بنور هداه كل مجلد هذه صحائفه عليهم أنزلت من ربهم تسري بروح تعبدي هذه مصالحهم وكل مصالح في الدين والدنيا بشرعة معتدي فالروح والخلق المطهر بعدها والمادة السفلى التي لم تبعد فهنا حضارة عليهم نظما وهنا سياسة على المتقيدين آه، نقلا وبطيرها ولدى الخطوط مشيد البليان قطبي أبا العباس يا ابن محمد يا أكرم الأفراد وال ولأنني سميت من أمر البي فجد الإله فتنبي سماني شوقي إليه خزانة من فضلي وشوقا كل الورى أغلى وتصوفي لمقام أهل حظوظي وتوثقي بقواعد الأركان لا قصتي أو موردي تذودني هول الجريمة تقتدي قسراني أفنيت أسباب الحياة دراسة وبلوت كل وسائل العرفة وقد انتهى كل لحل واحد من أن أطالبه بكل أمل قطبي أبا العباس يا ابن محمد يا أكرم الأفراد والأعيان مثلي بمثلك نملة قد خاتبت نفس ابن داود بغير لسان فأجب بلطفك لا بعين التأثر إن التأثر عادة سكران بهداك أعجب حكمة يا حكمتي في حالتي ومكاني فلربما قد قلت في عقلي وفي الروح فكيف تجره بأواني هذا معي في وحشتي هذا معي في صحبتي هذا مع ما ميزتي أن لم يكن في ميزتي ما يستظل بوفر الحق والحق أنك قد أتاك مبشرا خير الورى بالخطب والكدمة وهما الأساس لما ترى من نعمة عمت بساط الأرض بالفيدان فامدد يدا منها إلي تفضلا واردد بها وجدا بلا حسبان ما بال مثلك بالإباء وقد غدا يذوب بأدنى جهودك ما بال مثلك بالإباء وقد غدا يذوب بأدنى جودك الثقلان فالدهر دهرك لا تقارب سلطة والفتح فتحك كفتين فتعلقي بهداك أعجب حكمة يا حكمتي في حالتي ومكاني فتقلبا فيما تشاء وتصرفا من عالم الأرواح وال بل وزع هذه الأجور تكرما بين الرجال وعم بالتيجان هذا رسول الله يوم نزولي متخلدا بالعق والبر متبسما فرحا بصف ملائك بسطوا إليك أكفهم بطفاني يتلقنون صلاتك العظمى التي ما بعدها للجنس من قرب والحور من بين النوافذ في الحمى متفرجات فيك كالولدان وعليك برد قد كساك محمد في الموقفين به وفي الإعلام وبوجهك الصافي بوصف باهر أم الكتاب بخط النوراني يا سيدي يا سيدي يا سيدي فلي بمثلك متعة الأشفى يا سيدي يا سيدي يا سيدي من لي بمثلك للفاضلاني يا سيدي يا سيدي يا سيدي جزاك ربك عن بني الأرض ثم الصلاة على النبي وآله من ربي في ربي الحنان ما قال أحمد للتجاني منشدا فإليك يا ابن محمد نادى تحقق جوهر الإنسان تبارك الله تبارك الله الإنسان واو mu mel ni Eh, ngëneel coobare yàlla la waaw ngëneel coobare yàlla la ndax am na lu kenn mënul dégg diggante yonent bi ak boroomam kenn mënu ko dégg waaw ndax may gi dafa ëpp waaw may gi dafa ëpp tabarkalla tabarkalla Det var mellom yàlla ku xam boppam la te bëgg na it yonent bi xam boppam bu xamul boppam nit ñi dañu ko gaañ te kon dafay mel ni moom moo seetaan te seetaanul na moo tax xamuloo ni nanguwul yonent bi nekk dictateur ndax moo nit ñi te bëggul ku leen sonal moo tax du nangul yonent bi mu nekk dictateur mais itam du nangul communauté bi ñu wone luy niroog dictature jëme ko ci yonent bi ndax benn dictateur bu dëggu moo am te mooy yàlla du ko bàyyeeg yonent bi du ko bàyyeeg nit ñi moo tax sécheresse bu metti dafa am ñu ñëw seet si yonent bi di ko ñaanal sa borom sécheresse bi metti na mais yàlla yëg ci démarche bi espèce de chantage euh, ndax yonent bi laajul ndigal yàlla dañ ko ñu ñaanal rekk mu ñaan te waroon na laaj ndigal balaa ñaan wante comme am na seede yàlla it du ko ko xaj yàlla tàmbali taw tàmbali taw tàmbali taw tey ëllëg mu taw gannaaw ëllëg mu taw gannaawaate ëllëg mu taw ba kër yi daan dund bi yàqu nit ñi feebar dawati ñëw ci yonent bi ni ko ñaanal mu arrêté gis nga dàq na ñaari dictature yépp won na leen ni li ma koy rus yépp ba nangu ñaanam xamul fu ma jëm ak moom seetal loolu te dafa am lu nga xam ni sunu boroom rekk ko mën de xeetu yenn fayda yi ki moom rekk ko mën ki ñu sédd sax mënu ko ki moom moo ko mën te dafa dàq dictature yépp sécheresse am na ñëw nañu poñe ko ci façon buy niru ni euh, euh, dañ koy def chantage yàlla wuyu na ko ca ñaan ga yàq na ci lu ëpp li sécheresse bi yàq mais njariñam mooy yar yar na ci yonent bi yar ci jullit yi te lu am solo la yamunnuuna alayka an aslamu yàlla wax na yonent bi ni ko am na ñu laa def chantage di la woon ni euh, euh, bu nu tuubul woon dara du la jar bu nu tuubul woon dara jar kooku chantage la yàlla wax na ko yonent bi ni ko am na ñuy wax bëgg nga yëg ko ndax sa yëg dafa ëpp waye ma di la yëgal ni ñoomit tay ma def leen chantage won leen ni bu ma leen joxul won leer duñu dugg ci l'islam moo tax mesure mesure baax waraxaaun yuusi l anaama xalaahu ci seen am jàpp ndal su demee bay lor nit ñi teengal baax na ci jàpp ndal su demee bay lor nit ñi tàyngal baax na ci pirin la waaw waaw su ko defee ngëneelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ci yàlla waxul nit waru ko wax ba yàlla wax ko ba noppi dëgg la yonent bi nee na arab moo gën ci biir arab Quraysh moo gën ci biir Quraysh maa gën waaw wante waxul lu tax mu gën li mu nekk arab taxul li mu juddoo Quraysh taxul waaye source bi ci wetam rekk moo tax lu ko mooy dafay sàcc niru épuration ethnique moo tax da ngay wax ni fal urbu xayru unaasin summa xayruhumu quraychuhum wa huwa fihim xayru xayrihimi ñu ni fal urbu arab xayru unaasin ñoo gën a jege source bii tax nit gën moroom ma waaw waaw waaw lu ko mooy nga tuumaal jàmbur waaw Sidil Hadj Malick radiallahu taala anhu dafa daan wax ni maag cheikh ñoo bokk atelier waaye bu dara desul lu do roy maam ja laay roy waaw mu dellu wax ni